épisode 2 li jëm ci njàngum Serigne Khassim Mbacké yi Serigne Khassim mi ngi tàmbali am njàngam ci góor gu ñuy wax sëriñ Mamour Kébé ginnaaw gi ci la ko Serigne bu mag bi jébbal Serigne Dame Abdourahmane Lo mu yeggale fa njàngam alxuraan ginnaaw gi ci la ko Serigne bu mag bi tàmbalil njàngum xam-xamam ci téere bu ñu naan Tazawudu Sixaar ilaa jinaanillaahi zilan xaar muy téere boo nga xam ne nii Serigne bi da ko taalifal ndaw ñi ngir ñu si jàng seen tawxiid seenu gëm yàlla seenu jaamu yàlla. waaye itam seenu tasawuf boobu la téere nag sëriñ bee ko ko tàmbalil ba tarjumaa bi jeex ak ñetti bayit njëkk ya ginnaaw mu ko Lamine Dagana mu yeggale njàngam xam ba mujj géeju ci fànni xam-xam yu wute lool lu ci mel ni ji suuf si jaww ji maanaam ci gàttal sëriñ Xaasim Mbàkke wàllum géographie ak xam-xam yu demee noonu woon na ci lool waykat bu mag la woon itam moom sëriñ Xaasim Mbàkke way na ci arab way na ci olof bind na itam lu bare bari te képp ku jamono a jamonoonte ak moom xam nga ci moom yii la xam-xam sëriñ yi Mbàkke daana wax ay wax yu am solo lool mës na wax ni sëriñ Tuuba digalul benn taalibe lu dul lu koy tax a jubóog yàlla suñu boroom jubóole ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki mbokkam waaye itam jubóole ko ki dëkkandoom yàqul diggam ak kenn sëriñ Tuuba du yàq diggante kenn ak kenn